dafa tàmbalee tisbaar ne la waxtoom mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee jant bi rëccee yaa ngi koy xàmmee ci jëmm ju ne bu jant bi xasee fenk day am takk ndeel mu féete soowu takk ndeel bu it lu jant bi gën di yëkkatiku rek takk ndeel boobu gën di wàññiku su jant bi dee yëkkatiku di yëkkatiku ba toll ci digg asamaan nga xam ne foofa la mën a yem ci yëkkatiku ker gi foofa la mën a yem moom itam ci wàññiku day def tekk bu jant ba bàyyi ko ci digg asamaan soosee nag wuti sow ci sa gisu bët loolu mooy rëccug jant jamono yooyu jant bi rëccee nag li ci ëpp takk ndeer bi du jeex tàkk day des la muy des mën naa gudd mën naa gàtt li muy jeex tàkk tàkk bariwut su jeexee takk tàkk nag dañuy bàyyi ba beneen ker sosu maanaam tàmbali ba dafa keppaar ñu door ne tisbaar jot na loolee des ca takk ndeer ba nag ci jamono yi jant bi rëccee mbaale ca sosuwaat bañ door ne tisbaar jot na loolu ñu tuddee villu zawal foofu jant bi rëccee nag ci la muxtaarum tisbaar tàmbalee dana dema dem nag ba takk ndeer bu ne gudde ni boroom takk ndeer ba te nga bañ caa konte waale na keppaar sa tollu woon ba tisbaar di door a jot manes naa jàpp nit ku ne ndëggul boppam bu ci nattee juróom-yaari ndëggu moo tolloog ab guddaayam bu dee xasabam itam ñeenti xasabam moo tolloog ab guddaayam kon bu xamee na keppaar sa tollu woon ba tisbaar di jot mu génne ko bañ koo konte waale gannaaw ba nag mu natt ab takk ndeeram mu mat ñeenti xasabam wala mu mat juróom-ñaari ndëggoom nga xam ne kon muxtaarum tisbaar foofa la yem muxtaarum takkusaan nag tàmbalee foofa gel mooy suuf si xaw a xong xam naa ji yéexatut na mu weexe woon fa muxtaarum tisbaar yem te mooy bu takk ndeer bu ne guddee ne boroom takk ndeer ba te kontiwaale woo ci keppaar fa amoon ca ba tisbaar door jot foofee tisbaar yam fa la takkusaan moom tàmbalee dama dem nag ba takkusaan yi suuf jot ker yi jàppaloo nga xam ne boo dee xool naaj yi day xaw a xong du weexat na weexe woon ca bëccëg ba gannaaw takkusaan sib nañu naafila waaye nag daañu maye bu jullee ab néew li fekk muxtaarum takkusaan di jeex kon ku bëgg a waajal ab néew ci gannaaw takkusaan day fexe ba bu ñu sëlmalee takkusaan rek daal di koy jullee balaa kere yee jàppaloo bañ wax ne waxtu sibwa ak sina bu moxtaan takkusaan jeexee maanaam kere yi jàppaloon noonu naaju xaw xong rek dañuy sib ku jullee ab néew jullee ab néew nag ci waxtuñ ko sibee buñ ko defee itam tax ñu koy julleewaat dañu doyloo rek jullee gañ ko jullee buñ ko jullee woon ci waxtu ñu araamal ku ci jullee nag moom faaw ñu war koo baamuwaat julleewaat ko waaye waxoon nañ ne su fekkee néew ba mënu su ko ñàkk waajal ci saa su jullee ko yóbbu ndax buñ ko defut mu soppiku kon amatul waxtu waxtu wu ne mënees na ko caa waajal jullee ko yóbbu ko kenn du xaarati dara kenn du sibati wenn waxtu kenn du araamal wenn waxtu tisbaar ak takkusaan dañoo am ak bokkaale ci waxtu timis ak gee am ak bokkaale ci waxtu di bañ bokkaale ci waxtu war na tolloog loo mën a jullee ñeenti rakka bu dee jamono yoo xam ne jamono yoo xam ne kitiwoo wala diir boo mën a jullee ñaari rakka boo tolloo ci waxtu tukki di wàññi julli yi dañoo wute nag ci waxtu wañ bokk ndax dañ koo bokkee ci mujjug muxtaaru tisbaar wala dañ ko bokkee ci njëlbeenu waxtu takkusaan wuute googu day feeñ lool ndax bu ñu nee fañ bokki waxtu mooy boo demee ba tisbaar muxtaaram des fu ñu mën a jullee ñeenti rakka ndegam tukki woo wala ñaari rakka ndegam da ngay tukki boo nee foofa lañ bokki waxtu ñoom ñaar kon da nga sañ boo demee ba moxtaar tisbaar des loo mën a jullee takkusaan nga daal di gaaw rek julli takkusaan bañ a xaar ba takkusaan jot man li nga yàkkamti bàyyi ba wax takkusaan des loo mën a jullee ñeenti rakk nga daal di gaaw julli takkusaan bañ a xaar takkusaan jot wala boo dee tukki nga xaar ba sa digganteeg takkusaan jot bu yeseeg ñaari rakk nga gaaw julli takkusaan bañ a xaar ba takkusaan jot ndax kon na ngaa julli takkusaan ci waxtu wam bokk ak tisbaar boo nee nag liñ bokk kat ñu ngi ko bokkee ci njëlbeenu waxtu takkusaan li muy tekki mooy boo yeexe woon tisbaar tey ko ba muxtaaram jeex naka takkusaan jot nga daal di gaaw julli ko it doo am bàkkaar ndax da ngaa fekk waxtu ñu bokk ñoo ñaar nga julli ko ca nee nañu ni tisbaar takkusaan bokkaale waxtu ci ni nga déggee noonu timis ak gee itam mel boo nee moxtaarum timis mi ngi yem ci fàdduk shafaq maanaam xong-xong yi desoon ci sowu bi raaf boo nee foofu la moxtaarum timis yem da nga ne timis ak gee am nañ ak bokkaale ci waxtu kon wutee ba mooy dellu si ci dañ koo bokkaalee ci fa moxtaarum timis yem am dañ koo bokkaalee ci fa njëlbeenu bee maanaam fa gee tàmbalee boo nee ñu ngi ko bokkaalee ci fa muxtaarum timisiyam kon soo bàyyee ba muxtaar timis des rek ñeenti rakk yoo mën a jullee gee nga daal di gaaw julli gee itam gee ga wér na dara sikku ca ndax da ngaa fekk waxtu wañ bokk ñoom ñaar nga jullee ko ca su fekkee da nga ne ñu ngi ko bokkee ci njëlbeenu muxtaarum gee kon boo yéexee woon timis ba muxtaaram jeex nga daal di gaaw julli ko ci njëlbeenu waxtu gee doo am bakkaar ndax daa fekk ndax da ngaa fekk waxtu ñu bokk rek nga julee ko ca timis ñépp maas na ci ne waxtoom mi ngi tàmbalee ci bu jant bi sooyee tam yam nag te la ñu wute daam ñu koy natt ci li nga gën a miin bu shafaq fàddoo shafaq mooy xong-xong yi nga xam mooy des ci sow bi gannaaw bu jant bi sooyee bu demee baraaf mooy fàddu shafaq am nañu ne foofu la muxtaar timis yam am ñu déedéet dañ koy tollool rek bu jant bi sooyee daal buñ ca tegee diir boo xam ne laab xaj na fa dañuy wax nag laabug sangu te bañ a wax laabug jàpp mbaa tiim doonte sax moom day jàpp rek mbaa day tiim dañuy seet la gën a yàgg te mooy diirub laabu sangu ñu teg ca diir boo xam ne bu amee sobus mu war a tàggool dindi ko tàggoog moom seetaale ca it sol ay yére ak nodd ak liqaam julli ñetti rakk la diir bu toll noonu daal nee nañ wax soo jant ba soyee buñ ci tegee diir bu toll noonu rek moxtaarum timis daal lay jeex am na ñoo xam ne noonu lañ jàppe moxtaarum timis gee moom maase nañ ci ne moxtaaram mi ngi tàmbalee ci xong-xong ya desoon fa jant bi sowe woon bu demee baraaf fan la yem nag ba tey maase nañ ci mooy boo defoon guddi gi ñetti xaaj fu xaaj bu njëkk ba yem rek fal moxtaarum gee yem loolu day wuute loolu ndax ni jamono yi wuutee xam nga am na jamono yoo xam ne bala ngaa julli suba juróom benni waxtu tegal ñaar fukki minute fii lu toll nii balaa juróom benni waxtoo jot muy cinq heures quarante ci la ñuy julli suba loolu guddi yu wutee bëccëg yi nag boo takkee rek waxtu nga xam ne ca la jant bi soyee ca ngay tàmbalee guddi gi nga xaaj nag diggante mag ñuy war a noddu salaatu boo xam ñaata waxtu la boo ko defee ñetti xaaj nag xaaj bi njëkk ba fu mu yem rek fala muxtaarum gee yem muxtaarum suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xaree dafa am yaari fajar fajar goo xam du dëgg ak fajar goo xam ne dëgg-dëgg fajar la fajar gu jëkk gi nga xam ne mel ne ab cokkorub leer rek ñu koy misaale gennu till jooju fajar taxul ñuy wax fajar ji wér jë mooy ji nga xam ne leer gi tasaaroo na ba daj gox bi bu fajar fenkee ba leer gi tasaaroo foofu la muxtaaru suba tàmbalee dana dama dem nag ba bët di set ba bu nit dee ñëw soriwu la te muurul kanamam nga daal di xàmmee kanamam foofu la muxtaarum suba yem kon julli gu ne wax na la fa muxtaaram tàmbalee ak fa mu yem dana wax ci kanam nag lan mooy ab daroor yi ndax bu dee ci yoonu Malik waxtu julli wu ne dañ koy def ñaari xaaj xaaj bi ki tudd muxtaar nga xam ne war ngaa farlu ci julli ca balaa jeex ndax boo julliwut te amoo ngant ba mu jeex da nga yenu bàkkaar bu rëy xaaj ñaareel ba nag mu tudd ab daroor yi moom ñu ami ngant ñoo cay julli te duñ amee bàkkaar ci yeexe gañu yeexe ba booba mu nag julli gu ne nga julli ko ba muy door a jot ci njëlbeen nga mu ëpp tuyaaba julli gu ne bu wax fay door a jot nga daal koy julli fa saasa moo ëpp tuyaaba ba mu des nag bu dee tisbaar te ñi xaar mbooloo mi bëgg mbooloo mi fekk ci julli gi kon moom mënees naa bàyyi ba nga xamee ne waxtu yi jot na ba booy natt taxawaay ba lu toll ne kaaru taxawaay ba dolliku na ca fajar ga toll woon ba ci bari jot kaaru taxawaay bi nag bu dee ci ay xasab moom mën nga koo jàppe benn xasab xam nga ne woon nit ku ne ab taxawaayam moo tolloog bu nattoon ñeenti xasabam kon mën nga ne bu dee tisbaar te mbooloo ñoo ko bëgg a ànd julli mën nañoo nëggandiku ba bu tisbaar jotee takk ndeer ba yokk lu toll ne ab xasab bu dee jamonoy tàngaay nag moom topp addis ba day tax ñu sopp bu dee tisbaar ñu bàyyi ba yokku ca ñaari xasab maanaam takk ndeer ba yokk lu toll ne ñaari xasab muy genn wàllu taxawaay bu dee yow dong waxtu julli jot na gisoo ko àndal julli waaye yaakaar nga ne balaa waxtu yee jeex da nga gis ñoo àndal julli donte kenn la kon li waxe moom nga bañ a julli fi saasa te néganiku ba gis ka la yaakaar àndal ànd ak moom julli moo gën waaye dañuy wax ne lu gën mooy nga julli rek fi saasay saasa daal di am ngëneelul njëlbeen waxtu gannaaw ba nag boo gisee mbooloo wala kenn nga ànd ak moom baamu ndax nga am ngëneelul mbooloo waaye nag bu ko see julli timis moom gannaaw ba bu ko mën a baamu gée it bu ko see julli ba safa wetar ba noppi bu gisatee mbooloo du mën a baamu écres nag moom bu gisee mbooloo rek dana leen mën a baamu muy suba ak tisbaar ak takkusaan ak sax gee bu fekkoon ne jotawuta def wetar ni yàlla taw fii xale waa Touba nag ñu di ko def te waa dëkk beet ñu bari leen ci roy moom xéewal la mooy balaa waxtu jot daañu sone yëgle ne ku bëgg a waaj demal waaj waxtu wi des na fukki minit ak juróom buñ noddee itam daañu néegali ku toll ni fukki minit ak juróom ndax ku bëgg bokk si ci mbooloo mi mën a ñëw timis rek lañuy noddu daldi taxawal ndax muxtaaru timis moom dafa gàtt loolu daal mel ne ne lu tax mu génn njëlbeenu waxtu wa te ku bëgg a bokk si ci julli mbooloo gi mën a ñëw bokk ca mu ne nag bala ngaa julli na la wóor ne waxtu yi jot na mbaa nga jort ko bu dëgër a dëgër bu waxtu wa niisee nag mën laa xamee nenn waxtu julli yoroo montar yore leen loo koy xàmmee dangay seet ba xam bu amee wérdu woo xam daa nga ko def ni ki donc boo daa jàng ci alxuraan te daa nga mën a takk boo ci masaa noppi fu waxtu way toll ca waxtu woowa wala bu fekkee léegi fii rajo yi yaa ngi koy déglu te am na émission boo xam ne waxtu sàng la daan doon lu mel noonu jant bi niisee ba kenn mën nga xàmmee fu waxtu yi toll des naa seetlu ci mel noonu takk ca waxtu wa saa yoo takkee rek ba jàpp ne waxtu yi jot na rek lu wóorut it waaye dëgër na ci sa njort mën ngaa dal di julli soo tolloolee ba ne julli jot na nga dal di julli gannaaw ba lay yàq julli ga mooy mu wóor la ni booba kat da ngaa jàppoon jot na rek waaye jotutoon te gannaaw ba gis nga montar daal di xam ne julli jotutoon mbaa booba daa fekkoon courant coupé gannaaw bi nag kii nodd nodd te nga xam ne ci waxtu wa dëgg lay nodd kon julli ga julli woon moom du baax faaw da nga koy baamu mu ne nag boo dee sikki sàkka julli jot na am jotut mbaa nga jot rek ne jot na njort lu woyof njort la dëgërut nga daal di julli julli ga du baax doonte gannaaw ba xam nga ne booba julli jotoon na it du ko tax a baax ndax da nga doon sikki sàkk rek amoo ci woon loo wóor ne waxtu wa jot na ba tey it boo dogoo woon ci ne julli jot na aw ma ci nattable ba nga réew ba julli ba ci biir nag am lu la ñaawloo njort ne julli kat jotawut ni ki dangaa dem ba ci biir julli gi nga dégg ñu noddu te xam nga ne kii noddu moom ci waxtu wa rek lay noddu du ko yéexee kon faaw julli ga day yàqu lay baax rek mooy mu wóor la ne waxtu yi jot na mbaa sa jot dëgër ca lool te gannaaw ba gisoo dara lu ko dindi loolu lépp nag jamono yu njëkk la woon waaye fi mu toll moom yàlla def na ci xéewal mën nga am waxtu julli yi ci at mi yëpp ak foo mën toll daanaka ci àdduna bi bis bu ne nga xam julli gu ne waxtu woo koy julli ak fan la muxtaaram tàmbalee ak fan la yem ak fan la daroor yem tàmbalee fan la yem yëpp des na koy am saa yu nekk day door a wax daroor yi mu ne la julli gu ne faa la waxoon ne la fa la muxtaar ba yem rek fa ngay tàmbalee daroor yi bu dee ci suba da ngaa waxoon ne suba dee set ba bu nit dee ñëw nga mën a xàmmee kanamam foofa la muxtaar bu suba yem jàppal ne nag foofa la daroor yi tàmbalee ba cat jant bi fenk su cat jant bi fenkee rek suba léppam jeex na bu dee tisbaar daa waxoon ni muxtaaram mi ngi yem ci boo demee ba takk ndeer bi gudde ne boroom la dale fa takk ndeer ba guddee ba toll ne boroom wuti nag jant bay so lépp daroo riiwu tisbaar la waaye nag bu ñu demee ba sa digganteeg jant bi so genn jullee fa xaj dañuy jeexal foofa tisbaar moomale loola takkusaan takkusaan ma nga waxoon ne mi ngi yem ci bu suuf si xawee xongu ndax naaju yéexatut na mu weexaw ji digg bëccëg ker itam jàppaloo na fa nga waxoon ne fa la moxtaarum takkusaan yem la dalee foofu nag moom ba jant bi soo mooy nekk daroor yowam soo ñëwee timis ak geey da ngay wax ne timis am nañu ko yemale ci bu xong-xong yi raafee fi jant bi saxee woon dara xongatu fa kon la dalee foofu nag ba fajar fenk mooy daroor yowam boo demee nag ba sa digganteeg fajar di fenk genn julli xaj fa ñu moomale ko gee bàyyi timis gee it nga ne woon mi ngi yem ci boo defee guddi gi ñetti xaaj tàmbalee ko ci fa jant bi soxe woon bu benn xaaj ba jàllee foofa la muxtaarum gee yem loolu nga waxoon kon daroor yi mooy tàmbalee foofa nag wéy ba fajar fenk day wax nag lu lay xamal ne julli nga ca muxtaar mbaa julli nga ca daroor yi raw la mu ne la muy muxtaar muy daroor yi boo jullee rakk bu mat ba def ñaari sujjóotam rek mu door di jeex xama ne kon jot nga ko bu dee muxtaar ma julli nga ci muxtaar bu dee daroor yi julli nga ci daroor yi maanaam waxtu rawu la dëgg-dëgg rawu jeex tàkk mel ne bu yeexoon na julli suba ci ngànt waaye julli na rakk bu mat sëkk catu jant bi door a génn dañuy jàpp ne kon julleem gi lépp ak joox la maanaam julleem gi lépp dugg na ci waxtu wa ndax bu benn rakk xasee dugg rek ci biir waxtu wa lam àggale gannaaw ba lépp dañ ko yemaleeg rakk ba duggoon ci waxtu wa jàpp ni lépp ak jox la dara du ci ak fay loolu nag moo tax ku yeexoon a julli suba waaye am na ca benn rakk bu mat ba mu demee nag bay julli rakkab ñaareel ba am ku dikk ànd ak moom kookee ànd ak moom du baaxle ndax dañuy jàpp ne moom mi jiite te amoon na benn rakk laata jotul jant bi di génn julleem gi lépp ak joox la maanaam julli ci waxtu wala te nag ki ñëw ànd ak moom ci rakkab ñaareel nga xam ne fekk na waxtu yu jeex tàkk moom la muy def fay bor la te dañ ne woon balaa ñenn mën a ànd ci julli dañuy bokk di julli ci waxtu wa mbaa ñu bokk di fay bor te nag kee moom la mu def julli ci waxtu lañ koy jàppe ki ñëw ànd ak moom la mu def ak fay bor lañ koy jàppe ka julli ca mujjub muxtaar ak ka julli ca mujjub daroor yi nga xam ne ba mu ci amee benn ràkka mbaalu ko ëpp la waxtu wa jeex ak la des ci julli ga mu àggale ko gannaaw ba waxtu wa jeexee tutte lépp ñu tutte ko joox maanaam julli ca waxtu wa mu ne la boo yéexee bañ a julli ca muxtaar ma ba daroor yi ñëw nga door a julli te fekk amoon benn ngànt da nga gàddu da nga yenu bakaar bu diis a diis bu fekkee da nga amoon ngànt nag moo tax nga yeexee ba ca waxtu ñaareelu yi muy daroor yi moom doo am benn bakkaar bu la tudd nag xeeti ngànt yi ni ñu baree bokk na ca nekkutoon ci lislaam mbaa nekkoon na ci waaye daa waxul lu ko ci génne ba muy tuub nag mbaa ba muy dellusi ci lislaam fekk waxtu wa muxtaar ma jeex na ña nga ca daroor yi mu daal julli ca daroor yi kooku du am bàkkaar koo xam ne itam daa nekkoon gone bañ tolloo ca daroor yi mu yëg ne moom kat kàllafe na ni ki mu gént ca amani yu kooku day gaaw rek sangu te julli ca daroor yi bu fekkee julliwutoon noona la bu fekkee julliwoon na itam faw baamuwaat julli ga ndax gone ak julleem dañ ko xaw a jàppeek naafi la ndegam nag bañ tolloo ca moxtaar ma kàllafee gutoon li ak ci daroor yi la door a kàllafe doonte julli woon na itam day war a julliwaat ndax julleem ji mooy farata ga ko jiitu woon naafila la woon ci misaal lu ñu soppoon la ci moom rek waru ko woon ba tey ko ànd woon xamte ak ndof ni ki say wala mandi mandi goo xam ne teyu ko ba muxtaar jeex ba ñëw ba ca daroor yi xamte la mbaa ndof ga mbaa mandite ma door a jeex ba daal julli ca daroor yi kooku it du am bakkaar loolu lépp ngànt la ku amutoon tam lu mu laabe du ndox du suuf sum tiime amu ko woon ca muxtaar bañ àgg ca daroor yi mu door a am nag lu mu jàppe mbaa lum tiime mu daal di dooru julli ca daroor yi kooku ba tey du am bakkaar jigéen ju amee woon deret moo xam ju wasin la moo xam ju reegal la bañ àggee nag ca daroor yi door a yëg ne deretam jeex na mu daal di sangu julli ca daroor yi moom it du am bakkaar ak ku doon nelaw mbaa mu fàttee julli ndax fàtte yàllaa ko bind nit ba muxtaar jeex bañ agsi ci daroor yi mu daal di gaaw julli ca daroor yi kooku it du am bakkaar ndax loola ngant la muy nelaw muy fàtte ngant la day def nag su waxtu yi jotagut moom bu la neexee tëdd nelaw doonte xam nga ne sax boo xawulaa yeewu waaye waxtu yi jotagut moom mën ngaa tëdd nelaw su waxtu yi xasee jot nag moom wala ngaa sañ a tëdd nelaw te julliwoo da lay wóor ne faaw nga yeewu mbaa nga toogloo fi koo xam ne moo lay yee mu génn ci nag mandite mu araam bu naanee sàngara ba mandi loolu tax julliwul ca muxtaar ba ca daroor yi mu door julli moom du ko te am bakkaar ndax mandite moom moo ko teg boppam ka nga weesu woon léegi daa mandee ci loo xam ne teyu ko niki mu lekk ak lekk mbaa mu naan naan mbaa mu jëfandikoo garab rek tax ko tàggoog sagoom yaar julli bokkaali waxtu ci wet mooy tisbaar takkusaan ci beneen wet mooy timis ak gee waxoon nañ ko ci gannaaw la ngay xamee ne jot nga leen ba war nga leen a julli boo leen defut it muy rek bor bu la war mooy gannaaw bu ngànt la jeexee ñu seet ne mën nga fee laab julli julli ku jëkk ga ba ab rakka te jullit ñaareel ga kon xamal ne jot nga yaar yëpp mooy yaar yëpp la war mais la jigéen ju amoon deret dama dem nag ba suñ digganteeg jant bi so mënees na faa julli juróomi rakka ci gannaaw laab jigéen ji yëg ne laab na dañu jàpp ne kon tisbaar takkusaan yaar yëpp ko war ndax ndega moom waxtu yu mu laabe mënees na fee sangu ba noppi julli fi tisbaar ñeenti rakka dawalal fa takkusaan benn rakk balaa waxtu waa jeex dañu jàpp ne kon tisbaar takkusaan yaar yëpp ko war bu ko defuti na xam ne bor la ci moom rek bu doon timis ak gee itam ba ngant la dañee moo xam deret li ñu wax la moo xam xamte la moo jeex wala yi demee noonu ñu gis ne julliwutoon timis ak gee ndax mi ngi toll woon ci ngant li fa ngant la jeexee nag ñu gis ne mën na fee laab ba noppi julli fi ñeenti rakka dañuy jàpp ne kon timis ak gee yaa yëpp ko war ndax bu jullee timis ñett dana mën dawalal gee benn rakka ci waxtu wa balaa waxtu waa jeex doo ko àggale ci gannaaw ba waxtu wa jeexee yaa yëpp kon war na ko su ko defutit na xam ne bor la rek bu fekkee ne moom daa amee woon ngànt te nañ ko wax léegi bu ngànt sa dañe dañuy xool la des ci waxtu wa ba xam laab am ci baraka xaj na fa am ndéet ba mu des nag yéefar bi yéefar bi moom su duggee ci lislaam rek ñu daal di wax ne julli googa war na ko doonte sax laab am ci baraka xaju ci itam du tee rek julli googa war na ko bu ko dee julli ci gannaaw bu waxtu wa jàll it na ko julli rek moom waaye ku bokkut ak moom nag bu ngant la dañee dañuy xool la des ci waxtu wa ba xam bu dee kuy sangu mën na fee sangu ñu am abàkk ci waxtu waam déet bu dee kuy jàpp itam wala muy tiim ndax mën naa def laab googee ba noppi am lu matu baraka ca waxtu wa buñ tolloo leen loolu xaj na fa rek moom julli googa daal na koy war bu ko julliwut balaa waxtu waa jeexit muy bor rek mu war a fay loolu ak leeral la ci li ñu waxoon léegi bu doon julli suba ba ngant la dañee ñu xool la des suñ digganteeg cat jant bi di génn mënees na faa laab julli fa benn rakk ba sëkk ba àgg ci sujjóot ya ba def ay sujjóotam kon dañuy jàpp ne borom ngant li julli suba gi war na ko bu gaawul def ko itam muy bor rek bu war a fay ba tey itam yaari julli yu bokkaale waxtu moo xam tisbaar takkusaan la moo xam timis ak gee la su ngant la jeexee ñu gis ne mën na fee laab julli fa julli ga jëkk jàll ba am ab rakka ca julli fi ñaareel ga ba def ay sujjóotam waxtu wa door a jeex tàkk dañu jàpp ne kon yaari julli yépp war na ko dana ci misaal li ñu waxoon léegi ku amee woon deret ba mu demee nag ba jant bi di bëgg a soo deret ja jeex ñu gis ne mën na fee sangu julli fi juróom ràkka bu fekkee ne nekkul ci tukki wala julli fi ñetti ràkka bu fekkee ne daa toll ci wàññi julli ndax tukki kon dañuy jàpp ne yaari julli yépp war na ko ndax bu fekkee juróom ràkka yàlla day julli ñeent ña tisbaar mi njëkk dugal benn ba takkusaan ci waxtu wa mot li ko nag gannaaw ba waxtu wa jàllee te waxoon na ne julli moom boo ko dugalee ne benn ràkk ci waxtoom rek mel na ne lépp nga dugal lépp nga jox ci waxtu wa bu fekkoon day timis ak gee itam jigéen ji ba deretam di jeex digganteem ak fajar di fenk mënees na saa julli ñeenti rakk dañuy jàpp ne kon mën na julli timis ñetti rakka gannaaw bu sangoo ba noppi teg ci benn rakka julli ko dee balaa waxtu waa jeex te kon yaar yëpp war na ko muy timis ak gee ndax yaar yëpp xaj nañ ci waxtu gannaaw ngantam bu fekkoon mu nekk ci tukki moom fa ngant la dañee digganteem ak jant bi soo ñu mën faa julli ñetti rakka rek tisbaar takkusaan yaar yëpp war ko ndax ndegam day wàññi moom dana julli tisbaar ñaar dugalal benn takkusaan balaa waxtu waa jeex te kon yaar yëpp ko war noonu la koy defee bu dee timis ak gee moom doo ci teqale mu nekk ci tukki ak mu ñàkk nekk ci tukki ndax timis kenn du ko wàññi fa ngant la jeexee daal moom digganteem ak fajar di fenk bu ñu fa mënee julli ñeenti rakk rek yaar yëpp war ko muy timis ak gee ndax da julli timis ñett tëbal benn gée ci waxtu wa balaa jeex àggale nag gannaaw bi waxtu wa jeexee bu ne nag boo tegee fee nelaw ak fàtte xeeti ngànt ci des loo ci xam daa dal nit ci waxtu woo xam ne bu ca ngàntam dañoo ñu ne ko julli gi war na la kon bu ko ca ngànt la dikkalee ñu ne ko julli gi wàcc na la ci misaal jigéen joo xam ne tisbaar takkusaan yépp jot na fàttewul deful dara waxul nag mu julli ca kenn dama dem nag ba suñ digganteeg jant bi so ñu mën fay julli juróomi rakka mu daal di gis deret dañuy jàpp ne tisbaar takkusaan yaar yépp wàcc na ko ndax waxtoom gisee ngànt la muy deret ji bu ca laaboon yaar yépp a koy war ndax da nga ne woon ku ngàntam dañ ñu gis ne mën naa laab te bu dee digganteem ak jant bi so mën na faa julli juróomi rakka yaar yépp a koy war kon nag bu ko deret ñëwee léegi ci yooyu jamono itam yaar yépp a koy wàcc bu doon timis ak gee itam boo nee jigéen ji daal julliwul timis julliwul gee te amutoon benn ngànt mu bàyyee bàyyi nag ba digganteem ak fajar bi fenk ñu mën faa julli ñeenti rakka mu daal di gis deret dañuy jàpp ne kon timis ak gee yaar yépp wàcc na ko ndax boo amee woon deret dem ba digganteem ak fenku fajar mu mën faa laab julli fa ñeent rakka daal di laab dañ ne woon kon yaar yépp koy war kon nag bu gisee deret ci yooyu jamono itam yaar yépp koy wàcc bu dee suba it da ngaa waxoon ne bu deret ja jeexoon ñu jàpp ne la des digganteem ak jant bi fenk mën na faa laab am ca benn rakka suba war na ko kon jigéen bu fekkoon ne moo ko tey julliwul suba dama dem ba digganteem ak fenk di fenk benn rakk rek moo ci war a des mu daal di gis deret it julli suba ba dal na koy wàcc. bu dee nag yaari julli bokkaale waxtu te xëy na fàttewoo ko mooy tisbaar takkusaan ci wet timis ak gee ci wet suñ demee ba ca mujj waxtu wa ngantam dañ dañ gis ne yaar yëpp xaju ca genn rek ca xaj kon dañuy moomale loola julli ga mujj bu dee tisbaar takkusaan ñu ne ko takkusaan rek moo la war tisbaar waru la bu dee timis ak gee ñu jàpp ne gee rek moo ko war timis waru ko ci amu ngant la it noonu la bu demoon ba digganteem ak jant bi so lay fu mën a julli mooy benn rakk dong mbaa ñaar mbaa ñett mbaa ñeent waaye mosu juróom te moom tuuti fekk julliwutoon tisbaar takkusaan ngant dal koy dikkal day jàpp ne kon waxtu ngant si dikkee takkusaan mujj rek moo ko moom kon tisbaar mais fekk ko ci ngant li bu demee ba ngant li dañ war naa fay tisbaar moomee takkusaan mi rek moo koy wàcc bu doon timis ak gee it noonu lay mel su julliwul timis ak gee dama dem ba nga xam digganteem ak fajar de fenk doon jullee ci xaj dañuy moomale loola gee xam ne bu gisee foofa ngant gee rek moo koy wàcc waaye timis moom su ngantam dañee war na koo fay ndax bor la bu war ci moom loolu mat naa jàpp da ngaa waxoon ne bu doon ci ngant la bu dañee dañuy seet ba xam mën na fee laab am ci baraka wala déet boobu la ko julli gay door a war bu dee nag ci dañu ngant li moom duñ ca seetaale waxtu laab moom daal la des ci waxtu rek bu ko ca ngant dalee julli googu wàcc na ko buñ tolloo leen lu toll ne diir bi mën a laabe ak buñ ca mën a amee ab rakka wax toog ngant la dikkale daal moom su fekkee yaar julli xaj na ca wala genn xaj na ca rek bu dee yaar yaar yaar yépp koy wàcc bu dee genn gaa genn gaa koy wàcc xam ne foofu kenn du fi seet diirub laaj waxtu ngant la dikki rek la ñuy xool ñaata rakka xaj digganteem waxtu way jeex